kon mbokk yi ñu suivre ci Equivox TV xam ngeen ko dimanche arène nationale baaba jaw moo fa boroom borom càmm production indi ñu combat bu doy war soq ak gàmmu géey la ko tere woon am daaw moo doon coronavirus bi ñu ajoon ko bañ ne suba la ñuy bëre la corona bi dugg ñu aj lépp combat ba nag dañ koy tëgg dimanche 6 juin fan ci arène nationale soq gàmmu géey tey nag ma ne xaaral ma dugg laaj amateur u simple amateur u làmb sax laay wax kuy dund làmb moo xam simple wala avec frappe nu ñu gisee combat boobu ak kuñ ci faral ñoom. xam nga soq xam nga gàmmu géey defe naa de. Eh, soxla laa gën a miin. soq nga gën a miin. waaw ñoom ñaar seen combat noo ko gisee dimanche. Eh, sox de laa faral man. moom lay ñaanal waaw moom lay am ndam. est-ce que soq daan gàmmu géey dina yomb. waaw war naa mën a yem ne ndaxte sox day internet gàmmu géey day internet mais sox nag laa gën a kii moom laa gën a faral daal <laughs> hmm. waaw Euh, ñoom ñaar boo ma doon xool ku dàq bëri loo may wax. sox sox dàq bëri. waaw sox parce que moom nga faral. waaw waaw. moom nga bëgg mu daan. waaw moom laa bëgg mu daan moom laa yéene ndam. moom nga yéene ndam. waaw. Saliou dégg nga séeréer. dégg naa séeréer kay. looy looy wax dimaas maanaam supporteru looy wax soq ci séeréer ci ci ci dimanche ji kon. ci dimanche bi. waaw sox. supporter ki ten angaro am angaro na andalo amafra lon na jam assalamu ngado na jam ak salaam dafa tak promoteur bi ko tëgg Baba Diaw loo koy wax. Baba Diaw di ko ñaanal rek mu am kii mu am jàmm ak salaam. mu am jàmm ak salaam. waaw ba yeggale ji. ba yeggale làmb ji. sëñ Saliou bëgg ci yow. Mm, kilifa gi maa ngi lay ziar. ah ñu ngi lay delloo ziar lu bari. Mm, tur la nan la. Mouhamed Niang. soq gàmmu gi defe naa xam nga ne dimanche la. soq uh, gàmmu gi uh, waa dimanche la kay. dimanche ñaari mbër yi noo noo leen gisee. ñaari mbër yi ah fair play la de mais nag man. soq mooy suma mbër de moom laa bëgg mu daan de. moom laa bëgg mu daan de. est-ce que soq daan gàmm gi dina yomb. dana yomb kay. lu ko jot naa ko ci diggante bi dana ko daan ci lu yomb sax. boo ko jotee. ci diggante bi moo ko jotee téléphone ci diggante bi. soq dana ko daan ci lu yomb sax. xanaa la mystique la wala lan la. non non du mystique. ma ne ko du mystique sax. mu mbër la de. te lébu la. gàmmu mbër la lébu la mais nag soq mbër la. Hmm. te du mbëran muy foyee bëree de. Hmm. gis nga ne soq daal mën na ndam dimanche. ndam dimanche. bu kenn dul werante sax. Hmm. bu nekkee jot naa mun na am ndam dimanche bu kenn dul werante. ah. moo jot ko téléphone. man kay du maa koy fexe man. yow yaa yow mi seq ak moom kay yaa koy fexe. Babacar xam nga nag moom yow suñu mbër. laaj rek laa ci mën a def. non non mais yow xam nga ne suñu mbër la soq xam nga ne suñu mbër la daa nga jaar fe. si kattanu yàlla dinaa bëre Gamou Gueye ak manière maala leen ko wax incha allah. soq seen mbër la bokk. non man non man moom laa déglu yow laa ah, ah, macha allah sant allah sant. kon maa ma waaw nga ne. fans quoi ma ne fii da nga am ay fans. bilaay da nga am ay fans. ay fans. maa ngi lay ziar. waaw ah, delloo ziar. kaay kaay kaay Sokh Gamou Gueye non Sokh Gamou Gueye s'il vous plaît loo ci gis. bu neex la. ñoom ñaar noo leen gisee kan mooy favori combat bi. non ñoom ñaar ñoom ñaar ñëpp moom vraiment ñoom ñaar ñoom favori. nga am favori 100 pour cent la ñoom ñaar yëpp. ku nekk mën na daan morom. ku ne mën na daan sa morom day gaaw nag. day gaaw am na solo ko gaaw la wax loolu am na solo maa ngi lay bëgg kilifa. waaw dolli jaar baax. tur bi nan la. man la Cheikh Sarr. Cheikh Sarr waaw defe naa xam nga ko xam nga gàmmu gi. waa xam naa waaw waaw. kon combat bu gaaw la bu neex. waaw buy gaaw. buy gaaw la soq du ko may dara. waaw nu ma leen dégg daa mel ni soq ngeen faral de. Ah, dafa gaaw boole macha allah. Hmm. waaw. est ce que xale bi mu ko seqal est ce que mënees na koo saax saaxee daan. gaaw gaaw soq ko man man maa man Cheikh Sarr. yow soq gàmm gi noo ko gisee. ah combat ñoom ñaar ñëpp combat la. kë wax dëgg yàlla ma ci kenn këy miir a borom ah? yaay ba tey ñu ngi ci soq gàmmu géey copain maa ngi lay bëggee ziar naa la sant yàlla bu baax xam nga soq xam nga gàmmu géey xam naa leen de dimanche war a bëre ak Thiam production ah combat hmm. Hmm. ñaar noo gisee seen combat mais gàmmu moom gàmmu mbër la de. gàmmu mbër la. bien vrai que sox mooy sama mbër na moom laa moom laa supporté. waaw mais gàmmu ko xale bu tëla. gàmmu gi dafa tëdd dafa tëddee. kon yaakaaroo sox combat bi yomb ci moom dimanche. non mënut a yomb du yomb si sox. Hmm. du yomb si sox la dëkk lébu la. Hmm. Hmm. lébu yi de dañoo a dañoo dëkk tefes gi de. non combat bi du yomb si sox mais nag yàlla na ko yàlla may ndam sox. Ah. franchement man moom képp kuy pikin rek. man maa ngi maa ngi si ah, biir waa Pikine ngay ngay nga àndal maanaam Pikine laa moom lépp luy Pikine rek ah. waaw mooy loolu ba tey soq gàmmu gee copain maa ngi lay ziar maa lay delloo am nga jàmm bu baax tur bi nan la Ablaye Ndiaye Ablaye Ndiaye defe naa xam nga soq xam nga gàmmu gee waaw xam naa soq xam naa gàmmu gee kay mhm. léegi noo ko gisee dimanche combat bu nar a neex la de dëgg yàlla combat bu nar a la dina am bëre dina am xeex moom waaw dina am bëre dina am xeex man na gaaw non gëwma ko nag gëmu mu gaaw de. lu tax gëmu mu gaaw. noo parce que ni ni soq di bëree ak ni gàmmu gi di bëree dafa bokkul ma tax gëmu mu nekk combat bu gaaw quoi. koo gis ne moo ci ëpp bëre ñoom ñaar. non ñoom ñaar ñëpp a mën a bëre mais nag sama gis-gis. gàmmu gi moom moo daax xeex quoi. gàmmu moo daax moo daax xeex uh-huh. mais ñoom ñaar ñëpp mën nañu bëre. ñoom ñaar ñëpp kon dimanche looy wax amateur yi kon amateur yi daa mel ni am nañ combat bu neex dimanche de. non dañuy teel a ñëw koy solu rafet. waaw toog si kaw. amul damm sees. amul damm sees amul def dara ma ci crème naan sedd booy yu bëri xeex ñu ñibbi. ku daan yóbbu. ku daan yóbbu. kese mais man a instant moom. ma maa ngi si gàmmu de. <laughs> maa ngi si gàmmu kay. am na solo dama bëgg gàmmu daan ñu jox ko général bu Faas. da nga bëgg gàmmu daan ñu jox ko général bu Faas. bëgg. daanoon na mbërum Faas de Pape Ndoye. moo tax bëgg ñu jox ko général bu Faas nag parce que gàmmu dafa mën xeex. te général moom mooy. xeexkat la moom xeexkat la. ma bëgg ma doon bëgg ko. am na solo waaw loolu laa bëgg. <laughs> diggante sa adversaire fekk naa ko Gaye Ndiaye ma ne ko ndax pare nga mu ne ma loolu jarul sax a ndax daaw ba ren ku parewul dootoo pare moom pare na bu yàgg. ah loolu garaaw loolu moom la concerné ah loolu moom la concerné waaw. loolu concerné wu. Ah. waaw. soq yow ak gàmmu gi ku ci sa mbër yow yow sa ne nga gàmmooy sa mbër est-ce que gàmmu pare na pour daan soq am na lu daan lu lu lu lu mën a daan sox non gàmmu gi gàmmu gi doole bu wér la am. Hmm. parce man seetaan naa ko man maa ngi ci biir lamba ji tamit waaw seetaan naa ko combat mi bari Ibomar. waaw seetaan naa combat mi bari sokk day ñëw am na doole mais tamit lu muy indi ci lamba ji ah bu teeyut Gamou Gueye da koy daan ba jéggi ko daan ba jeg ko waaw di ñaanal tamit sama gars yi écrit aslèm xam nga ñoom ñoom ñoom kii nu mu tudd noonu Euh, ay ay ñoom sollu bu ndaw sama gaay waaw suba am nañu suñu benn booy da ci war a bëree ci combat gàmmu gi waaw mooy doomu buur tan bi waaw di ko ñaanal yàlla xam nga yàlla yàlla ko yàlla may ndam sama waa écrit yëpp ni la ñaanal yàlla leen yàlla may ndam sox gàmmu gi defe naa xam nga leen ah waaw xam naa lu baax ko komba bi noo ko gisee dimanche ah waaye sox moom gëm naa ne day daanu gàmmu da koy dóore da koy dóore da koy dóore koy wàcce sox neex naa wàcc seet sox soq dafa gàtt xel ni muy bore moom macha allah doyu ma de. gëm naa ne gàmm bu ko jàppee da koy defaral de waaw da koy xoromal ba mu saf saf gëm naa loolu. barki yonent yi kon daal dimanche gi am ngeen combat bu neex daa mel ni de. am nañ combat bu neex ku ma fa dëgg na ma ma sax. looy wax promoteur bi. promoteur bi waaw yàlla may ko jaam rek ak salaam ah. waaw. ñu koy ñaanal jàmm ak salaam rek. supporters yi tamit loo leen di wax pour ñu bu ñu supporters yi supporter mbër yi dimanche dimanche jooju. waaw ñu dal rek ànd ak euh, kii non violence bañ a def violence daal maanaam violence daal euh, c'est amul njëriñ quoi. waaw su ma sañoon daal ñu gunge mbër yi rek waa ànd ak tey xam nga dem euh, saa yi daan ñib si waat jaam rek mhm. kese loolu laa jigéen ba tey yaa ngi biir marché Salema ci jaaykat yi Copain maa lay bëgg am nga jaam sant bu baax waaw neex na trop. koo yaakaar ci moom lay gën a neex dimanche si ñoom ñaar. ah ñoom ñaar ñëpp daal ay bëreekat lañ moom ay ndaaraan làmb lañ waaw gay Gueye moom mën na bëree mën na xeex waaw même soq tamit même soof waaw soq dama koo jël fële Gaye Ndiaye mu ne bu jàppee combat bi jeex ànd ci lool. a ah, non loolu moom day yom moom. day yomb day yomb trop. xam naa ne ñoom ñaar daal ñoom ñaar ñëpp ay bëreekat lañ mais daal combat bi xam naa ne moom dina neex trop parce que nu ma ko gisee nii combat bi moom xam naa ne pare na moom waaw du ko caaxaanee daal. ba tey keneen rek maa ngi lay bëgg. bëggee ziar naa la Babacar. naka yëngu yi. bu wér. soq gàmmu gay dimanche noo ko gisee. soq day daan gàmmu gay. li nga wax terre à terre terre day daan gàmmu gay ñun ay mbëlañ sa làmb lañ nekk xam nañ ko moo soq yabul waa Pikine de gàmmu gay dafa jël lu ko bu doole. Hmm. naa la mën na bëre mais soq da koy daan. non Sokh day daan Gamou Gueye. da koy dóor mu daan da koy jàpp daan. non combat bi du bëri xeex. ci bëri lay mujjee quoi. ci bëri lay mujjee waaw bëri lay jeexee. mais daal la nga jàpp ne Sokh day daan. non Sokh day daan sook dafa am doole xanaa gisoo Sokh. man kay fekk naa ko Gaye Ndiaye. waaw mu ngi noonu lan nga gis lan nga gis si moom Sokh doole ji mu am ne mosu ko am. waaw nee na ma de bu bu bu de. dafa jël dafa jël lu ko bu doole instant Gamou Gueye dafa diis. gis nga combat bi ni mu demee. yàllaa ko suturaal rek mu daan. waaw mooy loolu de Sokh instant moom mooy loolu laa ci yoonam duul ta xoole tam ba gàmm ngay di ko daan waaw. am na solo kontaan. waaw kontaan naa si yow di wax tamit waaw yankaaw la ah, yankaaw. yankaaw waaw waaw waaw ñu koy ñaanal kii bi tournoi bi. waaw mu jël am 6 points. 6 points waaw daa mel ni 6 ngeen di waaye moom rëcc na leen 9 ya na leen. 9 ya rëcc nañu. instant yii 6 ñu dese. biir <laughs> bi nag damay doxantu di laaj ci soog gàmmu gi defe naa boo ñëwee fekk fi ñagas defe naa ne ñooñu bu la neexee sax nga ne ay nattangoom lañ ci làmba kii mooy ñagas bu bawal ñagas bu altu ndàngal ma maa ngi siyaar mbokk mi. delloo siyaar bu wér alhamdulilah dox naa ba fekk la ci biir magasin yi nga toog. waaw boobu de fii laay liggéeyee man jàpp sama bopp waaw. fii de laa toog jàpp da ngaa laaxutu. ah rek toog jàpp sama ñaar. looy laaxu yow tamit doone fàng gaa yi di la gis. ah lamb ji léegi neexatul promoteur yàq nañ ko. déet yan promoteur. promoteur yëpp ñoom ñëpp ku ci gis sa bopp yaa xam ñoom ñëpp ko yàq ah. ñagas man ma ma man loolu andi ma fi li ma fi andi lenn la soq gàmmu gay ma fi andi. Ah, li la ko laajee rek ma tontu la. kon soq gàmmu gay noo ko gisee dimanche. soq gàmmu gay ah. xanaa ñaanal soq mu daan. lu tax loolu loo bokk ak soq. ñoo bokk Pikine quoi. yow Pikine ngay fanaan. waaw koo gis sax. ci télé rek ci tale rek laa koy séenaa. Ah. mosu ngeen a daje ci làmb ji. mosunoo daje ci làmb ji. Hmm. boole ay ment fois mu daw. combat bi ba nii mënuñu koo bëre. moom rek laa soxla woon ndax dafa am lu mu waxoon stade boo ko laajee dina la ko wax. lu wax wax ja demee. moom rek laa soxla woon mënu mënu maa wax boobu. li ma daa doy waar li ma waxoon damaa miti torop. billaay wallaay tallaay. la doo mbër xanaa. <laughs> li ma daa en tout te ba léegi nag maa ngi koy dund. waaw benn baat rek la ma waxoon nag mu mitti ma torop mais xam naa ne baat bi du ma ko mën a wax ndax damaa miti. damaa miti torop. léegi kon jàpp nga ne moom bu ko soog jàppee war na ko mën a lijjanti. non làmb la nag quoi ñoom ñaar waaw ay booy lan yoo xamante nii danoo nekk ci làmb nekk ci yoon danoo war a mën a bëre ba yàlla boole leen ñuy bëre mais combat du ko dàq waaw ndax Gambu Gueye champion la soq champion la li may wax soq daal mooy ñagas teel nga bëre bëre bi Gambu Gueye du como waaw ndaanaan la de waaw lu ma baat bi métti métti bu may ñëwee bu ma doon koose soq teel laa la wax teel te xam ne Gamou Gueye champion la. yow nga lu daan Gamou Gueye. Gamou Gueye xam naa lu koy daan man bu doon mën a man moom bu doon mën a damay xeex ak moom te dinaa ko dóor mu daanu mënu ci dara. mais soq moom xam naa liñ ne ci man ci moom xeex mais bu dee bëri rek moo ngi ci moom yaa ngi dégg mais na tey bu teyee rek dina am dara quoi. yow nga ne kon ab doy dóor koy daan na tey kuy dóorante kay dootoo laa la wax waaw bu doon man xam naa ne damay xeex moom te dama koy dóor mu daan man loolu rek laa soxlaan ci Gamou Gueye man xeex ak moom rek man looloo ma arrangé woon tax xam naa ne mais li may ñaanal yàlla mooy sox yàlla may ko ndam te mu teey te xam ne Gamou Gueye li ma wax léegi rek lëg loo ko bañ bañ xamal ne dafa nopp yo gudd na te dafa mën a daw waaw mais bu téyee rek dina am ndam dina am som incha allah. kontaan ci yow. kontaan ci aja sàmm yow waaw maa ngi nii de ñu nga fa de. gëj nga gëj ma fa de <laughs> du ma fa gëj foofu du ma fa gëj. foofu du ma fa gëj bilaay ngay neex. altu ndax bu baax lay neex foofu du ma sa naqari <laughs>